loo wunu ba grand théâtre waruñu faa am droit ci biir janomak taskatu xibaar yi Aïda Mbodj daal dina mettitlu bundu bi ñuy def Ousmane Sonko mi mu jàpp ne tey ji moom mooy incarné démocratie sénégalaise bi ñu ngi ko doon xaar moom Abdoulaye Mbow ay dëmboc ci mu dem bokk ci ci boobu leeg dialogue waaye tey wane na beneen xar kanam que dialogue bi ne mel mëne su cee tàbbi te sàkku na ci njiitu réew bi nag mu bàyyi ñu ñu duppee détenu politique waaw euh, defe naa ne comme ni mu ko waxoon léegi rek euh, entité si yeewi askan wi euh, defe naa ne ñëpp ñoo ne demuñu si dialogue bi taxaw rek moo ne moom pare na pour dem pour wane ne ni kon bokk li nga xam ne moo ëpp solo si biir yeewi ñoom nee nañu duñ dem donc ñu indépendance bu ne duñu dem defe naa ne war nañ ko nangul benn organisation nga xam ne au delà bu mu bokk si plateforme dafa nekk une organisation privée ba pare waaye nag bu si nekk nag dina am conséquence si li nga xam ne moo njeexital bi par rapport ak perception bi bi askan wi di dem léegi nag wax na ko bàyyi ñi nga xam ñoo di détenu ñu duppee leen détenu politique jàpp naa ne effectivement Sénégal euh, war nañu dépassé cap boo xam ne dañuy jàpp ay ñetti téeméeru nit yoo xam ne lu si bari amaana présomption d'innocence mi ngi te ñu tuumaal rek lañ leen étape tuumaal la ñu toll ñu leen di ci fii nga xam moo ni prison jàpp naa nag lu bari si ñuy jàpp mais waroon nañ leen sax mën a juger en flagrant délit euh, moo gën ñu tëj nit ñaari weer ñetti weer ba pare jëkki saay libéré la nga ñibbi sa kër ñu naan après suñ la soxlaa daañu la woo si wàllu procès def naa nag war nañoo fexe desserrer l'étau hmm. pay ñu bari ñi nga xam ne ñu ngi si biir kaso yi ñu war a mën a ñibbi seen kër waree na beneen xar kanam nday faatu ci euh, euh, formation politique bu mu jiite waaye au delà ñaawlu na bu baax a baax euh, acharnement bi justice bi nekk di def ci kenn ci alliéem di Ousmane Sonko. bu dul sax allié yooyu euh, boobu noonu di Ousmane Sonko détenu yi am instant bi dafa bëri dafa jéggi dayoo. Hmm. léegi ku wax rek ñu woo la di la laaj lan moo tax nga wax léegi liberté d'expression sax man laa jàpp ne moo mën nekk une menace Sénégal kenn sañatul wax sa xalaat kenn sañatul exprimer li nga xamante ne mooy sa position ndax boo koy def yaa ngi ragal ñu woo la wala ñu teg la ci barab aussi ñoom ñi ñu emprisonné ci seeni biir militant dafa bari ci Pastef plus de quatre cent détenus ci jamono yi ñuy àddu te xam naa ne duñ fa yem dina am ñeneen ñoo xamante ne daañ leen woo mais loolu aussi dafa doon loo xam ne dafa flagrant boo xoolee Pastef ñi ko jiite affiche tête d'affiche yi nekk ci Pastef ku ci nekk jaar nga ci yoon muy Ousmane Sonko Biram Souley tey Bassirou Diomaye Faye Abass Fall ak El Malick Ndiaye léegi boo génnee ñooñu ci Pastef ñan ñoo ci des xanaa yeneen militants yi donc képp kuy responsable Pastef apparemment yaa ngi am problème ak wàll yoon loolu nag moo fi war a dak ndax bu ñu xoolee depuis 2012 ba léegi képp ku mhm. taxaw wane benn adversité bii rek am nga ay problème ci wàll yoon jógee ko ci Parti démocratique sénégalais ak i militant jaare ko ci taxawu ndakaaru bi ak Khalifa Sall kon euh, lu jëm ci wàllu détenu politique moom loolu réalité la nekkul ko làmb daj fii ci Sénégal. mi ngoog ci jamono jooju Ndeye Fatou bu ñu wax ci leneen jëm ci waajal euh, saison euh, des pluies bi nga xam ne ci la ñuy tàbbi en tout cas euh, taw yu njëkk ñu ngi koy xaar ci bët saalumuk réew mi mu mel ni kon agence nationale de la métrologie Euh, ñoom ci seen bopp daan amal ab ndaje wu am solo ngir mën a informer ñi nga xam ne ñoo di décideurs yi jàppale leen itam ci wàllu planification action de lutte soxal wàllu mbënn meek yi mel waaye surtout yéen ñu mën a jaar ngir am mbay mu ñoŋ ca noonu itam euh, daan ci euh, yëkkati ab plan de communication wax fiñ ci toll dañ ciy teewlu Ousmane Diagne ci mois de mais mi mais avant fin mai yaakaar nañu taw yi na tàmbali côté yi commencé na di yéeg au nord jàpp nañ aussi période bi jëm au ngi waxati euh, euh, centre est n'est-ce pas bët gànnaar jëm ci nord bi jàpp nañ na am ay taw aussi yu précoce yoo xam ni le mois de juin ak juillet yaakaar nañu am ay taw loolooy ci euh, nawet bi nan lay nan lay commencé li jëm nag ci ci ndox mi jàpp nañ aussi nañ am ndox moo xam ne xaw a takku peut-être du toll ni peut-être li ñu amoon daaw mais yàpp nañ ne am taw yu takkoo takku donc yoo xam ne ni muy tawee jàpp nañ aussi quantité bi mooy ndox aussi na bëri toll nii xam nañ ni nit ñi war nañu day commencé war nañu commencé planifier di saytu di xool lu ñu war a def moo tax ki leen jox ay app suñu xam-xam fi mu toll jox leen ay app ni lii daan lañ jàpp ni ci la saison bi dañ koy yónnee suñu naataango lu mel ni ISRA lu mel ni direction de agriculture DPV ñëpp lañ koy yónnee pour ñu jot bulletin bi pour ñoom ñi nga xam ni nag ñooy mën a xalaat xool ba xam yan tegtal lañuy ñuy jox baykat yi pour ñu def ko mi ngook ñu àddu wax ci jëriñ gi ñu dénk wàllu commerce ak consommation euh, petite moyenne daal dinay dallu euh, lu jëm ci euh, membre commission régionale départementale lu CONAREL ab commission nationale régulation du loyer locaux à usage d'habitation mu mel ni kon ci région bu Dakar képp la mbir mi soxal après dina ci topp itam région bu Thiès ak yeneen i région sabab bi du leen lu dul fexe daal xool yoon ñu mën a jaar ngir gën a mën a améliorer ci accès au logement ci ciy teewlu Karim Fofana boo xam ne dañ ko teg ngir wàññi luyaas yi commission évaluée bi ñu évalué ñu dem concertation ñu ne war nañ mën a wàññi luyaas yi encore waaye nag li gën a am solo mooy war nañ mën a am benn commission boo xam ne buñ ko tegee ku am jafe-jafe nga dem foo xam ne boo waxee ñu dégg la 26 septembre ak léegi mën nga jàpp ne juróom benn weer am na sans at ak genn wàll bi ko jiitu nga xam ne liggéey nañ ci ba si fii donc li ñu bëgg nag léegi fi mu ne mooy jëfe waxtaan nañ déggoo nañ pencoo nañ léegi dañuy dem sur le terrain région bu nekk am commission am département bu nekk am commission am ku am jafe-jafe nga ñëw wax ñu àtte la wala ñu wax la li yoon wax. commission nag mënoon na doon commission bu nationale waaye li nga xamante ne comité d'évaluation moom la wax mooy nañ ko teg waaye nañu fexe tamit départ région bu nekk nga am benn. ñu ngi leen ko doon wax ci tàmbali googu xibaar yi muy tabaski deux mille vingt lu jëm ci càkkutéef yi soxal euh, xar mu mel ni kon mën na ko xayma euh, ci juróom-ñetti téeméer ak fukk ci ay junni euh, mu mel ni kon lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ci ay junni fii ci ndakaaru daan ko fi soxla en tout cas loole moo génn ci conseil interministériel jëm ci wàllug waajtaayug tabaski ki ko dalloo bokk na ci ilimaanug jëriñ yi lu toll ci fukk ak ñett ci ay recommandations daan nañ ko fay def acteurs yi nag def nañu. nañu wala ñaa ñaawlu nañu lu jëm ci càccum jur ñi nga xam ne euh, bëri na lool la jamono ji Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye fukki recommandation ak ñett la ñu tënk gannaaw ndajeb conseil interministériel bi ci mbirum tabaski 2023 premier ministre xam ni moom mooy ministre de l'élevage moom moo ko jiite woon ci frontières yi camion bu nekk nag daañu am ñetti euh, sàmm yoo xamante ne ñoom ñooy euh, saytu xar yi jëriñ bi ñu dénk koppar biir réew mi ak gox-goxaan yi kenn ku nekk ca ñoom daañu saytu wëyal dogal gi nga xam ne moo jëm ci teggi nag taxi yi ci xar yi bu ñuy dugg fii ci suñu réew ñoom la ñu jàpp ngir ñu dalal xar yooyee sax muy point de vente yi laata tabaski bi ba suñu jàllee ci tabaski bi. avant pendant et après la fête de tabaski. ji niru ko ak daaw point de vente yi daañu wàññeeku ci diiwaanu Ndakaaru ndax liggéey di chantier yañu fa. sumb prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer ñeent jëwriñ bi ñu dénk biti réew dana jël matikaay yi war ngir nag wéral jàlluk xar ya ca Gàmbi daanu nag yombal diisoo ci diggante transporteurs yi ak opérateurs yi fukk ak ñetteelu ponk bi gouverneur yu région yi daanu nag doxal plan yi nga xam ne moom la ñu tënk diwaan yooyee. yi nga xam ne ñoo teewoon ñoom it daal nañ yëkkati seen i mbébét jëm ci wàllu kaaraange wàllu ko ndox mi ak éclairage bi ci point de vente yi dolli ca sax yenn ci ay jafe-jafe aajowoo ci ñàkkum payuk la ñu leble woon ci crédit ak càccum jur gi nga xam ne ba léegi nii mu ngay wéy kooku Ablaye Mbow kon waajtaal yi ñoŋ na lool ndax ñu ngi koy waaj mbirum tabaski euh, balaa ñu am jafe-jafe tàbbi ci te xar du am euh, jëwriñ ñi jël nañu matuwaay yu war. waaw defe naa ne euh, il faut savoir mën a anticiper si yenn événement yu lu si mel ni tabaski parce que bu ñu fàtte ni daanaka si njeexitalu weeru juin la te jàpp nañu juin ñëw na ba pare. Mhm. donc moo di approvisionner le marché ba pare njëg bi itam gars yi gën see mën a liggéey. Mhm. et itam Mohamed gis nga ni poche góorgóorlu moom dafay gën di dafay gën di wàññeeku te xar dafay gën di cher defe naa nag jëwriñ bi njëkk te nekk jamono ji jëwriñ bi ñu dénk itam wàllu élevage bi mhm. mu war see ñu war see mën a xar seen tànku tubéy ba nga xam ne marché bi effectivement par rapport li nga xam ne mooy crise sécuritaire bi nga xam ne am na Mali itam mhm. mu bañ a am impact comme daanu mu ñàkk am impact mu am bañ am impact mhm. ba nga xam ne le marché a mën a am suffisamment de mouton euh, par nga xam ne bourse boo toll a may njëkk bi nga xam ne am li nga xam moo di xar. mingoog Ndeye Fatou acteurs itam daal nañ ci pëtaxlu euh, sàkku ñu daal di xoolaat bu baax a baax lu jëm